mbokk yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool ak bànneex ci dellu siwaat nag euh, fas yéene àndaat ak yéen ni koy defee saa sune di no ndokkeel ñëpp nag euh, ci màggal gi nga xamante ni moom la ñu génn di ñaan sunu borom rek yàlla nañ ko teewe at yu bari te rafetu fekkin lépp loo xamante ni jaamu nañ fa sunu borom rek yàlla na ko sunu borom nangu te ful ko wasaare ko ci askanu sunu gaal gépp alors euh, ñu dellu si waat rek euh, fas yéene àndaat ak yéen ak euh, gan yi nga xamante ni jàpp nañ ne daal am nañu njariñ ci askan wi tey nag ki ñu indi gan la ci biir kër gi waaye nag ca la muy yëngu macha allah fa tabarakallaaw loolu tax rek ñu nangu ko ubbil sunuy bunt fas yéene séq ak moom waxtaan ci li nga xamante ni ci lay yëngu ci wàllu ñaan sëñ abu saw maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci sama biir kër. Hmm, waaleykum maa ngi lay fay soxna. di wax rek alhamdulilah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli maa ngi nuyu waa àdduna nuyu waa réew yëpp kilif diine yi rawatina màggal bi ñu doog doog paase di wax ñi demoon foofu yëpp yàlla na leen yàlla yàlla na leen yàlla may yiw baal leen seen bakkaar seen aaju faju bi joxe rasul sallallahu alayhi wa sallam ñun itam ñun ñi nga xamante ni ñoo toog fii ci biir kër gi ak mbokk yi seetaan te seen xol ak seen xalaat yëpp demoon Touba itam yal na yàlla jégal leen seen i bàkkaar faj seen i ci barke borom Touba euh, sëñ Abu di yëngu ci wàllu ñaan euh, sëñ Abu mooy kan fu mu fekk baax. waaw sëñ Abu ma ngi fekk baax Jolof. Jolof waaw. Mhm. aussi ñaan dem kaa fekk. Mhm. waaw képp ku ma ko ku fekk ma si yëngutim mhm. Euh, du ma wax euh, beneen baat lu lu dul li ngay def lool nga war a def ndax dama dama fekk samay maam yu ñaan mm-hmm. dama fekk samay papa yu ñaan mm-hmm. nekk ay doomi daara mm-hmm. waaw loolu moo loolu moo ma ci dugal loolu moo la waaw jàng na alxuraan jàng na alxuraan jàng na mais pël moom am lu spécial ci lu jëm ci wàllu ñaan pël moom lu mu tuuti tuuti tuuti rek am jikko caay-caay xam nga samay kal ngeen loolu loolu dégg naa ko. waaw loolu mu am na xam nga mm, ay xam nga pël bu nekkee xale. mu mm. dem si àll bi. Mm. muy ànd xar yi ak nag yi. lu bari di koy xam. Mm-hmm. loolu moo tax ñun bi ñu dañoo commencé rek ñu mën a defar ay affaire mm-hmm. ay wàllu ay wàllu seet. Mm-hmm. man fàttaliku naa bi ñu nekk ay xale ñu commencé seet si biir ndox. wala si wàllu tomb gisaani. gisaani jàng naa ko ci suuf. aussi jàng na ko si mm, si si alxuraan man ba usulu ramli mm-hmm. ñëpp ñu xam ramli xam nañ man ba usulu ramli mm-hmm. ban xeet téere la mm-hmm. waaw d'accord donc dugg nga ci ne cadre lu ne ki nga xamante ni mooy sëñ abu saw ñu dalal ko tey day yëngu ci wàllu seet waaye ba tey damay delluwaat ci àll ba wax nga ne ci àll ba fa ngeen di jàngee seet ci ndox fa ngeen di jàngee yu bari mais fa ngeen di jàngee tam euh, defante ba pël euh, boo tooñee pël dañ naan dugg nga ni rubba lu waral loolu. waaw lépp lum lum lum lépp lum mënti yore nag. Mm. da ci fiir. Mm-hmm. boo ko laalee rek jaral nag pour mm-hmm. euh, gàcc la gën ragal ak dee. Mm-hmm. loolu moo tax pour lu gën a bari balaa muy nekk balaa muy jàng leneen. day jàng xam-xam ba pare waaw. di jàng xam-xam ba pare ndax gàcce bi si boppam moom la bañ moom la bañ waaw d'accord gàcce googu moom la bañ ku ko bañ itam da ngay woo ki nga xamante ni mooy abu saw woo ko ci 77 747 57 74 wala nga woo ko ci 77 866 46 00 77 866 46 00 ngeen am ko fépp foo xamante ni fa nga nekk rek di nga mën a jëflante ak moom gannaaw bi nga xamante ni tëb nañ wàllu seet gi gàcce la pël gën a bañ que li nga xamante ni moom mooy dee ci kaw loolu itam pël dina def loo xamante ni ku ko laal comme ki nga xamante ni mooy Abu Saw yor na loo xamante ni maanaam ku ko laal yàqu mooy ci lu jëm ci wàllu kaaraange waa loolu moom alhamdulilahi rabbil alamin waaw dañ kaa loolu sax dañu dem ba boole tuñ ko ci suñu affaire ndax dañ kaa def defaat ko def defaat ko. muy wàllu kaaraange muy wàllu kaaraange mm-hmm. ñun boo seetloo suur suur bi nga juddoo. Mm-hmm. suur boobu. Mm-hmm. boo boo boo juddoo. lii la njëkk defal wàllu wàllu wàllu kaaraange ndax yu si gën a bëri. foofu lay commencé ci nit. d'accord waaw. loolu moo tax pôle pôle pôle day màgg rek. day màggaale gàllaajam d'accord bi mu juddoo rek ngeen koy def bu juddoo rek dañ koy commencé defaral ay kaalaange ndax nit bu nekkee xale mhm. yëpp yu koy arrivé foofu lay commencé mhm. waaw loolu ma tax ñun da ngay judd rek ñun ñu defaral say mbir loolu ma tax pël lum tuuti tuuti mhm. bu amee quinze ans bu dee wér na dina am soxna wala mu am jëkkër détail boobu moom dafa doon sa for balaa ma ciy dugg euh, ci lu jëm ci wàllu am borom kër ak yooyu ndax kii de abu saw ci wàllu sunguf ak reen ak fas lay yëngu wala daf ci boole alxuraan ji. waaw alhamdulilah alxuraan mooy alxuraan moom mooy sama moom mooy sama base. waaw. Mhm. mais nag yor na ay maam xam nit ñeent maam lay am. Mhm. sama ñaari maam yi. Mhm. ñooy alxuraan loolu lañ xam si loolu lañ leen nàndalee. mais sama yeneen maam yi si wàllu sungu fax reen loolu la ñu gën. waaw lu leen nandale loolu moo tax ñaar yëpp nag. alhamdulilah am na lu bari lu ma si am na lu bari lu ma si yore. Euh, am na solo mu ngi noonu numéro yaa ngi noonu suuf suufu écran bi abu saw la ñu àndal tey jii euh, ci émission bi euh, muy nekk nag lu ci ëpp ci àll bi waaye ànd ak lu mën a xew ku ko woo ku ne di nga ko jot boo ko jotulee itam boo ko wàccalee message dana la revenir at incha allahu taala parce que boo gisee ma dugg ci wàllu sunguf ak ren bari na lu pël di def ci wàllu bayre ci wàllu sunguf la koy def ak ren. waa xam nga boobu ak ren. waa xam nga bayre bu grand <laughs> nga nit. Hmm. kenn ku ne am lu koy fàcc. kenn ku ne am lu koy faj mhm. alxuraan dafa kuñ ko war a jox mhm. garab dafa kuñ ko war a jox mhm. bu ñu xoolee bi xam yow mii sa biddiw lan la méngoo loolu lañ lay jox loolu moo tax nit nit boo xam si nit bu ñëwee si yow danga war xam kii ci suuf lañ ko war a xoolal bu dee bu dee biddiwam suuf la wala kii si wàllu kurus lañ ko xoolale wala si wàllu téeri wala si wàllu ndox waaw kenn ku ne am na rawaanam fu mu jëm loolu moo tax nag bu dee xam nga li nga xam nga li ngay def. Mm. du nit nu mu ñëwee rek noonu nga koy def d'accord waaw. donc bayra bi léeg-léeg nga jox nit alxuraan. léeg-léeg nag ma jax sa yëpp jox ko. léeg-léeg nga jox sa su yaram bi tàng dama jax sa yëpp jox ko. parce que gis naa ñu siiw ñu bari ñoo xamante ni nanguwuñu bàyyi Aboubacar. ah alham Abou Sow ci ci ci ci àll bi. alhamdulilah Abou Sow at yi bariwul mais nag am na lu ko yàlla may. Mm-hmm. loolu moom du affaire ndamu. mais am na lu mu am am na lu ñu yàlla may. Mm-hmm. waaw looloo waral tey ñu indi la fii parce que li la yàlla may moom la ñu bëgg mbokki internet yi jariñoo ci rawatina wàllu bayre boobu nga xamante ni macha allah pël moom euh, ku ko xam xam ko ci wàllu bayre xam ko ci wàllu ubbeeku wàllu ubbeeku boobu sax ci lay ñëw moom tamit gis naa ñu bari mais pël yi lu tax ñu am xaalis léegi. waaw xam nga am na ay affaire yoo xam si waaw xam nga waaw xam nga lépp loo gis am na bunt bu ñu war a jaar mm-hmm. boo am na loo xam si boo ko boo ko sangoo mm. foo mën jaar da ngay am xaalis même bu dee da ngay far da ngay am xaalis même bu dee da koy for mm. dangay am xaalis loo xam ne boo wallaahi waaw mooy sunguf bu ndaw boobu mooy sunguf ak alxuraan yëpp alxuraan bi lu ñu ko wàccee fii lépp mu mu ngi si alxuraan. Mhm. lépp mu ngi si garab. Mhm. waaw na solo donc mu ngi noonu bàyyi leen ko xel numéro yaa ngi noonu ci suufu écran bi ki nga xamante ni dafa bëgg kaaraange ki nga xamante ni dafa bëgg ubbeeku wala ki bëgg bayre macha allah fa tabarakallahu boo euh, jëflanteeg moom rek euh, incha allahu taala di nga ci gis résultat lu tax ngeen bëgg bay. waaw bay dafa am ay secret yu si yu secret yu xam nga béy mm. def nekk mala boo xam ne si mm. dafa bari lu muy signifié mm-hmm. waaw dafa bari lu mm. loolu nag bëgguma ci kuus waaw ndax lépp loo xam si wax nga ko partagé nga rek nekk tu secret te mm-hmm. léegi sàcckat secret yi dañoo bari mm-hmm. loolu moo tax loolu moom duma ci kuus waaw bul wax loolu ma duma seen gétt yi li ngeen ciy liggéey maanaam nit ki nga xamante ni dafa am jafe-jafe wala muy xëccoo dara wala mu bëgg ku ko samp wala mu bëgg loo xamante ni daal dem dem dikk lay doon euh, gis naa ni des fois da koy jëfandikoo surtout yow kii fi nga xamante ni mooy seen gétt yi mën nga ma ñëw secret yooyu wala doo ko wax waa secret yooyu def bëri ay secret yu si nekk mhm. loolu moo tax bëgguma ci course lu bari mhm. mais nag mais nag bu nit ñëwee bañ xam ne kii nii mhm. ban nit la aussi ban ban ban planète la taxaw dinañ ko ci xuusal si lu bari mais doo ma mën a wax waaw loolu moom dama koy. jéggal parce du neen ah. Euh, déedéet gétt yi ndax gétt yi doo ci gis loo xam si neexu la. doo ñu ndax da gis da gis gétt euh, suñu wàllu cosaan. Hmm. gétt lépp jigéen boo xam si dem sax ba mënul am boroom kër. Hmm. walla góor boo xam si ne dem na ba nekk waxambaane mënul am liggéey mënul am dara. Hmm. am na loo xam si dañ ko koy defaral. mu dem fanaani gétt. fi fi béji di fanaan mm. mu fanaan foofu bu bët mu ñëwaat lum laal day kii loolu ci sa kër béy la nekk mm. euh, ni ma xamee sama mbokki pël yi moo garaaw lu doy waar la dox euh, wàllu samp nit euh, ab Abou Sow daf ci def lu am solo lan ngay sampe nit waaw man dina sampe nit si wàllu atam ak si wallu rawxaanam mm-hmm. ko ma samp ko ci loolu ba taxaw am na benn am na benn secret loolu secret musalsul Ghazali la mm-hmm. mais loolu tey du foofu lañ jëm mm-hmm. musalsul Ghazali loolu benn benn kaatim la benn kaatim la waaw musalsul Ghazali kaatim boobu bu dee xam nga lépp loo si dugal boo ñoddee mu ñëw waaw bu dee xaalis lépp loo si dugal loo si dugal bu neexee yàlla day ñëw. borom kër mu ma ne la loo ci dugal mu ñëw. xaatim boobu ci ngay defal ñi nga xamante ne dañu nekk bitim réew tey jëflante yow ci wàllu këyit wala. xaatim boobu bari na lu muy bari na lu lu muy dox. Mm. mais ñi xam ne dañoo bëgg am pouvoir. Mm. wala ay kilifa wala wala wala politique. Mm. wala kàccante loo xam si lu rëy la. si Moussa Azali lañ ko dugal. léegi loolu buñ ko dugalee day am luñ ciy def. ñu fomp ko def ko ndox loolu sax bëgg ma ci woon kuus mais foog ma leer la mhm. ñu wut ndaal ndaal waaw ndaal ndaal mhm. am na ay secret ñu def ci biir ndaal yi ak mhm. dugub ak xam nga koo gis di lekk dugub wala walla ñun fii si Afrique wala wala uh, wala ceeb wala mboq nga jël ko ngay Euh, da ngay xool weer bi bu dee fukki at bu dee fukki fan ak ñeent mm-hmm. xam weer bi foofu lay gën leere mm-hmm. foofu ngay commencé di roose mm-hmm. saafar boobu ngay roose dugub bi wala kii bi bu mu sax waaw bu saxee nag loolu mooy samp li sax li loolu ngay din nga bool ko sekk si nga jox ko nit ki muy suur wala wala bu dee wàllu rawaanam wala wàllu ndox la di koy song bu dee rawaanam wàllu wàllu naar yi la muy safara di koy suur fu mu mën jaar day changé foog ñu dégg ko. foog ñu ni loolu di jebbee noonu la ay affaire di jebbee. ma ne loolu sax mbaayam caaxaanu. amul traîner loolu caaxaanu. Euh, xam-xamu pël moo tax des fois da lu ci bari damay ñëw ak ñoom damay bëgg a jëflante ak ñoom bëgg itam mbokk yi nga xamante ni euh, ñoo tax may jëflante ak ñoom déglu ko bu baax a baax a baax fa ñuy waxee. du ay caaxaan moom moo tax ñu ñëw fii donc euh, numéro yaa ngi nii 77 la 747 57 74 wala 77 866 46 00 lu jëm ci ki nga xamante ni dafa bëgg tukki bari na ñoo xamante ni tey bëgg nañu tukki muy të ñoom lan ñoom lan nga leen di may. man tukki moom lu ma si gën a bari li jëf di jëf maanaam dëkk jëfe si nit yi. Mm. benn aay bi ñu wax su mu sabeel yassaru mm-hmm. ay alxuraan la ki bëgg tukki mhm. loolu am na fi ñu koy peese si si si maanaam si wéeru wolof mhm. nga xam nit ki ban planète la taxaw mhm. nga xam nit ki atam fu mu toll foofu ngañ ko peese loolu kuñ ko defaraal bu soobee yàlla danga tukki même bu fekkente ni tukki nga lay jaar waaw kayit itam am na ay yeneen programme yoo xam si dañ ko jaare foofu pour am kayit. Mhm. waaw. Mhm. Mhm. d' accord parce que gis naa tukkikat yi itam euh, bëgg nañu lool ki nga xamante ni mooy abu euh, euh, Aboubacry macha allah fa tabarakallahu Abou Sow maa koy woowee Aboubacry waaye abu saw macha allah ñuy jëflante ak moom donc numéro baa ngi noonu waaye itam euh, bëgg naa kaaraange parce que réew mi toll na foo xamante ni tey accident yi bari na cat bari na euh, làmmiñ bari na pël moom bëyam njabo euh, njabootam ak juram yépp dañu am benn kaaraange boo xamante ni moom lañ leen di ñage ba pare itam lu jëm ci wàllu cat moom tamit dafa nekk seen foor waaw gis nga wàllu wàllu kaaraange. Mhm. surtout yaasin. Mhm. ak benn garab bu ñu wàkk. Mm. bi ñu wàkk mm, xam na nan lañ ko waxee si wolof. Mm-hmm. guumi. naka guumi ñun guumi lañ ko wax. koy wax waaw guumi. Mm-hmm. loolu am luñ ko boole. Mm-hmm. nga def ko ci sirru yaasin. yaasin dafa bari ay secret yu si nekk. waaw yaasin maanaam nim nu sax yaasin da koy def. mën nga uh, yaasin am na am na noo koy defee mën mën nga dugg si biir néeg bi def li nga def nga génn kenn doon gis. Hmm? way ci suuratu yaasin yonent yonent bi subhaanahu wa taala mhm. yonent bi sallallahu alayhi mhm. bi muy bi mu jaar ci si yéeféer yi muy dem mhm. suuratu yaasin la jàngoon waaw kon secret baa ngi fi ba léegi nit yi ñooy soppeeku mais alxuraan fu mu nekkoon wal wala sungu fu mu nekkoon ba léegi mu ngi fa mais nag lépp loo gis nag boo ko boo ko joxee akam nga def ko ni nga ko war a defee mhm. wallahi azim même boo jotul cent pour cent tamit da nga jot quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi wallahi euh, boo ko joxee akam boobu damay daal di taxaw euh, ci laaj yi euh, bëgg naa dugg sax ci ki nga xamante ni dafa nekk ci bërëbu liggéeykaay te bëggu faa jóge bëgg faa sax waaye nag jox ko akam googu léeg dafay des ci wàllu ñaankat yi mhm. ñàkk jox akam wala jël alalu nit ban pare bu la bis bu ngeen di jëflante su la yónnee xaalis rek dootu la mën a dégg loolu loo ciy wax ak ñàkk jox ak ñaan. loolu moom boo boo boo seetee ni képp nit bu koy def. Mm. bëggul avancé. Mm-hmm. ndax boo nit yónnee àllam. Mm. dootul joteeti. Mm-hmm. bu yàggee du kenn dootoo gis kenn. Mm-hmm. wala loolu ku koy def day fekk yow li ngay def xamoo ko. wallahi asi mbir mbir ñaan. Mm. billahi noobu mbir noobul la. yëfi noobul la yëfi noobul la. moo gën neex sax nekk président. ndax liberté bi ngay am fan. ku ñëw diis aajam nga dugg ñaan yàlla yàlla faj ko ndam boobu ba ndam moom moo gën a rëy gisuma ko kon nag nit yi nañ jox liggéey bi ak kam ñu dem si àll bi buñ xamul ñu dindi garab yi nañ ko war a dindee mhm. ñu def xaatim yi nañ ko war a defee garab du du ko ne bu heure bu ne nga ko dindi du boo koy dindi man maay liggéeyal sama man xale la am ma benn kii mhm. man loolu mooy sama liggéey man liggéey dem koy jox akam bu ma sekk ndax am ma biro am ma leneen kon nag man sam liggéey bi rek moom moom moom moom moom ma ñor. am na solo Abou Sow la ñu àndal macha allah lu ëpp ci li nga xamante ni ci lay yëngu muy nekk ci àll bi ni mu leen ko waxee ci wàllu garab yeeg wàllu xaatim yi ak wàllu wéetal yàlla mais boo ko xoolee macha allah gis ci moom ragal borom bi bu baax a baax a baax euh, lan moo tax nga bëgg àll ba lu ëpp ci li ngay def nga di ko defee àll ba. waaw àll ba lépp lu mu bëgg foofu foofu laa koy amee. Mm-hmm. waaw. moo tax nga choisir toujours yaa ngi àll ba. wallaahi. mbooti fa la nekk. mbooti fa la nekk lépp fa la nekk garab garab yi fa la nekk bërëb yu garab yi fa la nekk waan yi fa la nekk mhm. bukki yi fa la nekk jën yi fa la nekk d'accord muy lu am solo taxul nag mu jafee jëflanteel parce que képp koo xamante ni euh, mi ngi Dakar léeg-léeg sax am ay kilifa yoo xamante ni ñoo la tax a ñëw dakaar looloo tax ma profité ci pour dalal la pour émission bi pour nit ñi war a mën a xamante ak yow mais bari na ci ñoo xamante ni bu ñuy jëflanteeg yow da ngay jógee àll ba ñëw fii waaw xam nga am nit yoo xam si dañu mm-hmm. waaye nit yi boo liggéey ak ñoom mm-hmm. fokk nga partager ak ñoom mm-hmm. waaw am na la wàllu ki nga bëgg faa jógee te ko moom secret bi lan la man am na benn secret bu may jële si place boo xam si nit réew dafa ami indépendance am am na loo fay jële boo indee boo nekkee si place boo fa reyee nit sax doo fa jógee. Ah, ah, foofu daal laa yem bi nga xam ni réew fala amee fala moomee boppam. Mm-hmm. muy place comme sa Sénégal place de l'indépendance. Mm-hmm. xam nga foofu foofu foofu lañ joxe seen bopp. Mm-hmm. am na benn secret booy dindi foofu. nga am benn benn ñaan boo ko ko boolee. boo ko defee ci biir place. place bi boo lépp loo mën def kenn du la fa jóge yow yaay neex rek nga dem. même ki nekk bitim réew sax euh, tey soxla sax ci place boobu bu la indilee la nga koy laaj ca place de l'indépendance nga jot ci liggéey li ngay liggéey yónnee ko ko mu defaat ko ca place booba du fa jóg. ay ca léegi kon ku ñu dàqati yow la neex macha allah fa tabaarkàllaa gis ngeen ko mu ngi noonu ba tey itam euh, lenn itam seen mbir la ni nga ko waxee sànq bëgg am borom kër ak euh, bëgg am soxna gis naa ne pël yi ci wàllu boppam. ñoom ci seen wàllu bopp seen doom fukkeet ak ñett wala fukkeet ak ñaar sëy na bu yàgg te sëy ba ko neex ba ko gënal lay doon léeg sax nga may sa doom nit mu bañ ne bëggul sëy ba waaye mu ñëw gisante ki nga xamante ni mooy Abu Bakar mu defal ko loo xamante ni xale bi day daal di bëgg sëy ba toog ca biir sëy ba mboot yooyu ci biir sëy yépp ñëwal ma ci bala may ñëw ci nopp waaw waaw xam nga mbir mbir sëy mm. loolu lu am solo la ci jigéen mm-hmm. jigéen bu dee wér amul benn laagu mm-hmm. maximum bu amee fukki at ak juróom-ñaar war na am borom kër war am borom kër ñun nag yàlla def na bi jaman commencé presque ba léegi Paul moom bu amee ñaar fukk bu amee fukki at ñaar wala fukki at ak juróom dina am jëkkër waaye loolu nag foog nga liggéey ko léegi loolu moom man fii nit comme comme sax comme kër nii fi nit di lekkee mooy yi nga xam ne dañ koy waddal yàbbit yi yàbbit yi man loolu dem si defar nit mu am borom kër ci ñaata temps <laughs> waaw xam nga bëgg ma joxe taa yàlla yàlla mooy maye mais loolu dañ si defar ay wàllu bëgg am borom kër waaw yàlla moom moom lépp parce que question piège lay doon waaw yàlla moom li xam nga looy lépp looy def boole was yàlla def def def fekk yow sa xam-xam bëriwul mais bool yàbbit Abou Sow doo bàyyi yu grave yi. wala ki nga xam ne daf bëgg njabootam mu. booloo booloo. waaw boo ma fi indilee sa njaboot du mos takkali ko boo dee deewee sax nii la ñu def. mais lu tax mag. moom yar mag moom yar. dénk la te aussi wër naa nag sama at bariwu nag mais wër naa fu bari. xam nga mu ngi nii bis bu set secret day feeñ ci kër Mbayang parce que lii lañ ci soxla yàlla na ci nit ñi gis seen bopp. te moom itam yàlla bu ko yàlla nattoo mukk muy sàggane ki nga xamante ni am na jafe-jafe ba ñëw ci moom walla mu di ko mettil 77 la 747 57 74 wala 77 866 46 00 Aboubacar ndax li muy laaj bari na sëñ Abou Sow waa san départ ci sa liggéey rek mhm. laaj bu bari ci yëpp xam nga nit boo ko deflaree mu gis mhm. kooku même bu dee gore na mhm. même boo ko jul dee la jox lu seddal sa xol bu la joxul lu sedd sa xol dina indi keneen. kon nag ay laaj yu bari ak affaire yooyu yëpp jaru ko. jaru waaw mais nag nit mhm. am na ay jafe-jafe. Mhm. yu muy nekk bala nga koy régler. Mhm. ndax foog nga bay liggéey yu bari. nga toogal ko moom kese. kon kooku ni foog mu jox li nga xam ne moom nga mun toogee. waaw d'accord donte amul metti. wàllu noob jëkkër ak jabar jabar noob jëkkër wala jëkkër noob jabar ay fas nga koy defee wala lan nga koy defee. waaw man lu si gën a bari wal noob bañ naax sax bég xale bu jigéen wala xale bu góor balaa ba ñuy man boo waxee affaire noob dama lay wax lu leer ndax man sam noob xaful mm, mook adoon te ñaanu ma yàlla jàppale nit muy foo mm-hmm. mook adoon mm-hmm. ndax bu boobaa dinaa ko wax dinaa ko layoo sam loolu moo tax boo ñëwee ma nga ne xale bu jigéen wala nga ne xale bu góor dama lay laaj ndax dangaa bëgg sëy ak moom mm-hmm. wala dangaa bëgg bu dee góor dangaa bëgg sëy ak moom wala bu dee jigéen dangaa bëgg sëy ak mm-hmm. boo ne waaw bisimilah mm-hmm. boo ne loolu bari na xam di ñëw man man leen dem leen ma xool la ma xam ne yow mii kii nii naru ko tax danga kaa nar fooye ma bay du benn du ñaar mais ki nga xamante ni sëy nga ak moom ba pare jigéen mu bëgg a wan ginnaaw borom këram wala borom kër bi bëgg wan ginnaaw te soxna si doyalagul ci moom wala waa ji doyalagul ci moom. Mhm. boobu noob itam boobu xeetu noob danga koy def. waa xam nga lépp lu yàlla daganal. Mhm. fase mhm. yàlla dafa daganal mais. moom la gën a la gën a bañ. moo tax nga fexe ba ñaari nit surtout ñu dem ba am ay doom ba am ay njaboot. nga fexe ñooñ ba yàlla boole waat leen. loolu loolu tiyaab yi nga si am même bu ñu jar na ko. te am na secret yi nga xam ne si buñ ci defee loolu soxna Mbayang bu bu moytul sàkk <laughs> bu moytul sàkk day ëpp loxo day ëpp loxo ñu yem foofu daal ñu yem foofu kon ñu yem foofu. <laughs> kon yi yéen a ko déggandoo muy góor muy jigéen képp koo xamante ni da ngaa nekk ak sa soxna euh, bu dee góor la mu bëgg rëcc ci say loxo te ngeen jaboot te yaakaar ne sax léeg-léeg du tayef Euh, mu ngi noonu jokkoo ak Abu dina la ci jàppale dina toog ci kër gi yaru ba mel ni xaru yar ki nga xamante ni itam dafa nekk ak borom këram itam naka noonu am lu dugg ci diggante bi na jokkoo ak moom su ko defee rek lépp loo xamante ni xeetu jàppale la dina la ko jàppale ba déggoo amaat sa diggante yaak sa boroom kër donc mu ngi noonu euh, sëñ Abu yan jàngoro lay faj. waaw man jàngoor yi may faj. Hmm. dinaa faj wàllu ngóor. waaw. Hmm. wala tim wala seytaane dina ko faj waaw xam nga am ñu bari di ñu wax noonu ndoxum si duma faj hmm. am na ay waaye nag boom wooy dinaal dinaal dimbali ko ko faj waaw dinaal dimbali ko faj xam nga am ñoo xam si dañu xool nit fekkee ngelaw seytaane moo ko dugg hmm. wala bët hmm. wala lamiñ ñu ne ko kii dañ kaa liggéey wala dañ kaa xool xoolin bu bon rek xam nga am am na ay am na ay bët yoo xam ne si mm-hmm. lépp luñ xool lool lool loolu day tardé mm-hmm. am na ay gémmiñ yoo xam si lépp luñ wax rek mm-hmm. loolu de am problème ndax balaa ngay tàkk nit wala balaa ngay def nit lu bon foog nga wax foog nga tudd ko kon nag gis nga lamiñ lu garaaw la ah, yooyu tiim am nañu secret yi nga xam ne yàlla jox nañu si buy bu dee yaa ngi ko yàlla dina la ci musal waaw donc kattan rek ngay faj doo ku ñëw ndax ah, am bari ñoom xam ñi xam ne dañ koy faj. dañ bokk boole buñ sax leneen. loolu wax kattan daal am na benn tur boo xam si boo koy wirde sax boo deful daal sax boo koy wirde rek balaa ngay tëdd loolu dalay may. dalay may kattan. waxal na yàlla li mu fi ay jàngoro newul ne lépp lay faj man lii dama koy bëgg moo tax ma sawar bi ñu ko kilifa indee fii ci Dakar ma profité àndandoo ak moom rek ci émission bi pour bëgg ngeen xam ko waaye fu mu ci mënti nekk it dina jëflante ak yéen ci kàttanu yàlla du ngeen ci am lu leen naqari benn yoon wax naa leen ne leen ñi nga xamante ni ñoo may seetaan euh, ku ci am lu la naqari ci sëriñ yi rek woo ma bu ko defee man ñoom la su ko defee dinaa ko jëflante ak ñoom ndax nag wax naa leen ne duma ma nangu ëllëg ñoom seen bàmmeel ñu tëdd tàlli yéen seen bàmmeel ngeen tëdd tàlli man ma tëdd nekk ci diggante bi ndax lan amit ay mbuxum yooyu gu dox ci ñoom déedéet taluma ko tabarkàlla macha allah te gisuma lu ko jaral donc moom bu ngeen ko bëggee jot wala ngeen ko 77 747 57 74 wala ngeen woo ko 77 866 46 00 euh, ngeen jot ko daal di jëflante ak moom ci li nga xamante ni moom lañ fi waxtaanee lan ngay tàggoog mbokki internet yi. waaw alhamdulilah rabil aalamiina mm. di wax ko nit yi rek nañ dal lépp lu nit xam. Mm. mu mu jëfe ko. Mm-hmm. lépp lu nit xamul. Mm-hmm. mu bay ko. wala yaf al mm. ci leen xatta yàlla xukmun la fii. nit warul def loo xam si amu si xam-xam. Mm-hmm. waaw ndax loolu boo defee rek coow coow coow lii yëpp yow yaa koy waral mm. di waxtaan di loolu foog ma wax ko ndax am na lu ma yàlla woon mm. kilif bu mag moom mag wax mm. ñi nekk ci wàllu pouvoir bi wàllu wàllu nguur gi ak ñi nga xam ne dañu wàllu politique nañ fagaru mm-hmm. am na luy ñëw képp ku ci fagarul ah. ci kilifa nguur gi ci gi ñi nga xam ne dañu wut réew mi ak ñi xam ñoo nekk ci réew mi nañu fagaru nañu fagaru mhm. ku ci fagarul fii ak ay ay ay weer yu néew mhm. jafe-jafe yi dana bëri de nañ fagaru nañ nañ fagaru wut ay gàllaaj mhm. waaw am na solo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax lépp li nga xam ne wax nañ ko fi jubul suñu motadi la mm-hmm. lépp lu si jub su ndimbal yàlla la mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ku xool média yi di nga xam ne tey c'est la première fois euh, mu teew ci média nanguwu ko woon nag waaye jéem nañu waxtaan ak moom ba indil leen kon ndax njariñ li nga xamante ni moom la làmboo ñu koy gërëm bu baax a baax sañ Abou saw wax naa leen ko numéro yaa ngi noonu ci suuf écran bi ngeen mën ti jëflan nga mën a jëflanteek moom foo mën a nekk Euh, mën nga ko envoyé message whatsapp boo ko jotulee rek nga jàpp ne yitte yeeg liggéey bi moo ko njett waaye nag bu paree dana la rappeler ndax euh, am na ragal ci sunu borom ba nga xamante ni jox na cër mbokk yi nga xamante ni ñoo koy woo mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen itam ngeen di ñu ñaanal jàmm jàmm joojee yàlla na ko yàlla lawal ba biir sunu gaal 24 mu senti seddi ci libaas sama technicien du jour bii nga xamante ni tabarkàlla macha allah am na yar am na teggin yàlla na ko ci yàlla sédd lu bari sédd leen ko yéen ñi àndoon ak ñun di ñu seetaan mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amanillah jaa ngeen jëf